Gaston Production présente Eumeu Sène Tay Lac de Guiers 2 les Diatou du Waalo dimanche avril 2021 en live pay-per-view sur seneaffiche.com waaw waaw waaw

ndooy ndànk rek day raam ram ba lii laa ko fekkoon ca saal ba waaye waaye laay njaay sa caméra bi gaaw laay njaay bi laay laay sama rek oto bi day raam oto bi dana raam yàgg maar maa mën ngaa raam yàgg. fekk nag na gaaw tuuti waay. non ñii ñooy arrière. waaw daa non waa déet bés bee ko laaj. bés bii de su ko fayoo. yaat ma danaa na làmb foo la waaye ku daanu rus moo tax kenn du ci ko. dañ ciy def sa fulla ak sa jom ba fa ngay ba ba loolu yàlla may. gars yi xoolal bu ngeen ubbeekoo rek mu gën a gaaw wala ubbeekul. mu gën a yàgg sa tàng sa tàng. waaw mais loolu li tax bëgg a wàcc xam nga xam nga làmb daal daa bëri lu mu làmboo waaw ma ñëw ñëwal ci man. dafa mbër ñu tungoom ko dina ko mbër ñu tungoom. bot la. ah mën na. waaw moom laa bëgg ñu yëngu foofu. wala fii rek. dama sama bañ ko affaire mbër. non fii rek fii rek baax na. nii fa fa bi baax na angle bi. na ñëw na ñëw na ñëw. non moo ndaw loolu bu ngeen ko bëggee day am ñu moo gën taxaw fii nii ngeen ngeen xool dara ci kanam day am ñu dem waaw gis nga la defe non kaat la ak moom. kaat la yow yaay jël seen responsabilité. kenn diwut bi gàtt ngeen am droit gàtt. voilà may mu ñëw gàtt. s'il te plaît. non yow yaay jël responsabilité. saa waay siis bi da nga koy arrière ne siis balaa moom gaañ nii. te Lamine Lamine saa mi wax Lamine saa mi wax. yow yaay yow yaa may liggéey balaa ñëw bari.

kan ak kan mooy dugg ñëwul. waaw nañu defoon kenn rek a des kenn a des. kenn a des kii la daay tëj bu kii duggee ngeen tëj tëj leen tëj leen tëj leen tëj leen tëj leen

di tax ñu fay ñu man dama koy abdi moom lamb moo ñu boole gaston daf ñoo fay ñoo bëri ñu jox nit ñi cër te xam ne dañ ñoo fay bàyyi suñuy morom bis bi tey ñu ko bëgg a bëri bëri na dawul mu sax ni dugub mu sax ni gerte ngelaw di ñuy yëngal te bañ bañ na leen bañ a buuse dinañ laxasoodu bu baax dañuy teel a ñibbi mais man de pare naa problème nag moom moom nag dama xamul moom dina bëre dama xamul day xeex dama xamul lu mu désiré mais daal man daa ko fekk nga gën a pare nii jël Omar Diop wala kan bi bi fu mu jógee pare kan bi ndeysaan sama waa moom moom moom daal moom molo na kan bi jógee sama waa daal kan bi daal mi nii daal li nii tànku la waaw bi nag boo ko gisee moom après nañ la wax tànk bi non foog nga wax ma tànku lan la bàyyi ñu wax la après tey gis nga ko rek comme ni ko gars yi defee ci lamb rek. mais yow daa mel na ngay lamb de. damay xeex si damaa bëri si damaa def ci ful damaa gëj a bëri. mystiquement dafa mel ni yaa gën a pare yow nag. Seydina Mohamed maa ngi gërëm suñu président pour Moussa Fall di gërëm. di gërëm sama sëriñ président Macky Sall dañ ko war a xam bàyyi ma xel quoi man dama dem ba découragé quoi dama naan balaa demee xel après di ma faral moom moom na ma jàppale ñun citoyen Sénégal ñu dëkk bi lañ dëkk man yemb ku ma xam bu ko bëggee nañ ko tegaat pour deux heures kaset yaa ngi fi man avant moo nekk dara laa taxaw ànd ak moom ci dëkk bi moom du ko wet bu bëggee bu ñu toogee léegi tegaat waaw man dañ ma war a jàppale jeunesse laa nekk xale bu ndaw laa aw ma dara mënuma dara maa ngi wut yor jabar yor doom moom nañu jàppale wala suñu yaay Marème Faye bu dee ñu ñuy dégg yéen bu ñu ko mën a jotale loolu yow suñu mag nga nga wax ko mu eggale lañu loolu ñun dañoo war a liggéey te nañu dimbale kan suñu lan la. man nga ni sa lan la. yow. sama waay nga sama xarit nga sama entraîneur. ñoo bokk ndey ba. waaw ñoo bokk Adama Awa bokk dëkku Macky Sall. ana Bac Seras Bac Seras. waaw ñu ngi fi moom ñu ngi koy ñaan yàlla may ko ndax moom dañu war a jox combat dinaa xeex dinaa bëre moom moom xam na ma xam naa ko su xeexee da nga ko dóor bu ma duma ko ba jàngal ko bëre bu bëree ma daan ko moom kay na taxaw ñu nangoo sax rek ñu bañ a déplacé quoi gars yi dañu bëgg a teel a ji li mu bëgg dañuy bëre man de su ma déggalee bilaay benn apprentissage la ñu am ñu nit benn jàppante la am benn apprentissage su ma ko saxee man su ma xamee si waaw dañuy ñibbi ëmb seen la dëggeer ëmb seen la dëggeer yàlla may ndam baax na ëmb seen yàlla ko yàlla may ndam ah, maa ngi gërëm waa Pikine ah. sant waa Pikine voilà ma geeg yoo am pël maa leen di gërëm dañ maa jàppale wan ma jàmm bëgg ma bëggul sax ma gën dëkk bi mais lépp lu ma am ginnaaw yàlla ak yonte bi maa ngi sant waa Pikine di gërëm waa Pikine mais tellement nag bu ci exemple may yeewoo wala dëkk mais man yamb ñëpp laa ma yamb kenn man yamb waaw ma neex ma dox waaw ma sant waaw mais yàlla yàlla may na fekkee ma daan ko ci ba mu benn wala mais amul seen daan naka gerte may gërëm na sama bopp ñu naan bambara gën a tooxal sa xarit bi. est-ce que na ci. ah day jàpp lépp moom moo koy yor. xaaroon na Zora Mbaye mi ngi joué wiri wiri. ndax maa jàppale suba ngoon daf may yee sama téléphone du fay heure ma ñëw sax ma jox yàpp di ma jox kaay nga ma combat bi sama combat la. kër Zora Mbaye wiri wiri. Ah, may gën a xaaroon na waaw ak Lamine Diop. Ah. ak Ousmane Diop Pape Diop Daba Diop may woo di woo Mohamed Ndao Tyson. Siteu men Siteu men sama xarit sama waay la man taalibe sëñ Modou Moussa Fall sëriñ Cheikh Ouna Fall la man dem naa kan ko 2002. parce que Cheikh Ibrahima Fall la Mbab. Siteu mi ngi jàpp di ko mën. Siteu chaque jour biñ ko ci déggoo man may mbërëm da ko wax ñëpp di ko dégg damay fekk Louga ba may daan yaaw Louga ñu ko. may daan yaaw Louga ñu ko. maa la gën a kontaan. nee na ngay tar dugal. incha allah jël ko ci kaw ak suuf. jërëjëf waaw. aywa c'est bon. Gaston Production présente Eumeu Sène Tay Shinger Lac de Guiers 2 les Diatos du Walo dimanche 4 avril 2021 en live pay-per-view sur seneaffiche.com